أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi noo ngi ànd ak yéen ci téere bii di Buluugh al Maraam tey ñuy jël juróom fukkeelu xadis ci buntub laab xadis bi ndey Aïcha moo ko nettali mu ne wa an Aïchata radiyallahu anha qaalat كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أتيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه بقي sunu yaay Aysa nee na li nu baaxoo di def mooy bala ñu jël xadis bi ñu wax ci ki nettali xadis bi même bu dee juróomi mbir wala fukki mbir mbokk yi yaay Aysa lan ngeen xam ci moom ndax xam ngeen ci Aysa dara maza taarifuuna an saydatuna Aïcha mbokk bi nee na moom bokk na ci soxna yonent bi saxiix ak lan bokkoon na ci boroom xam-xam yu jigéen yi ndax mokkaloon na 2210 hadis ak lan yonte bi waxoon na hadis bi ñu ngi koy jam loolu lay leeral loolu lay wax noonu ne yonent bi waxoon na bu ngeen bëggee jël seen génn wàllu dina jël leen ko ci ndaw su xonq si waaye hadis bi am nay wax kon yaay Aysa ci gaaw doomu sëy Seyduna Abu Bakrin la Abu Bakrin Sadiq mooy woy juróom bu góor Aysa soxna woon la ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye mbokk yi Aïcha bokkoon na ci soxna yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëggoon na leen trop ba tax sax bu yonent bi di waaj a génn àdduna bi mu woowee soxna yi nañu diisoo fan lay fan lay nekk ko mënatul déplacé wu soxna yëpp dañoo ànd ne ko nekkal néegu Aïcha moom yaay Aïcha doon na tiitru sax ci kaw jigéen ñi naan leen yonent yàlla Muhammad day ci sama néeg la faatoo ci sama ay la faatu waaye ci samay kaw tànk fa la faatoo loolu ngëneel la yu yàlla tabaraka wa taala defal soxna si di Aïcha moom soxna Aïcha moo ñuy nettali xadiisu tey bi mu ne kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam yujibuhu atayammunu fi tanaulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullihi nday ay sane yonent bi alayhi salatu wasalaam doon na nekk koo xam ne dana ko yéem dana bëgg kaana annabi yonent bi nekkoon na yujibuhu di ko yéem atayammunu ndey jooru fi tanaulihi buy soldaal ndey joor lay njëkke wa tarajjulihi buy peñaw ndey joor lay tàmbalee wa tuhurihi buy jàpp ndey joor lay tàmbalee wa fi sha'nihi kullihi ci mbiram yépp ndey joor lay tàmbalee ba mu des ay mbir yu ndaw kon hadis boobu la ñuy jàng tey suñu yemoon fii rek ñun ñëpp ñu dem ñibbi sunu laajee waa yéen tey lu ngeen jëlee jàkka ja lu ngeen doon jàng ku gën a gàtt ci xam-xam ci ñun lu mu war a tontu mooy ndeyjoor am na yu ngëneel yu rëy lu tax nee nañ la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndeyjoor dakaa yéemoon suy sol daal moom lay njëkk sol buy peñewu côté ndeyjoor lay njëkki suy jàpp wala muy sangu ndeyjoor lay njëkki mbiram yépp ndeyjoor lay njëkkee hadis bi am na ay njàngalin yu muy jàngale bu ci njëkk mooy in kaana rasul sallallahu alayhi wa sallam fi axiri lafz hadis bi jàngeen ni mutafaqun alayhi la suñ ne mutafaqun alayhi mooy buxaari ak muslim ñoo ci dëppoo mu ne kaana rasul sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu atayammunu fi sha'nihi kulli nee na yonent alayhi salaatu wassalaam nekkoon na koo xam ne di bëgg ndeyjooru mbiram yépp si sol dal buy peñaw buy laab mu ne looloo tax borom téere bii bi muy bind ci buntam njàpp ci buntab laab mu jël hadis bi boole ko ci buntab laab lida awrada al musannif rahimahullah hadha al hadis fi kitab at-tahara loolu tax borom téere bi daa di rotal hadis bi def ko ci buntab laab lu tax li yudallila ala istihbaabi albadu bilyamin fil wudu ngir mu mën a dalileel mu mun a tegtale mu mun a dëgëral ne sopp nañ ci kuy jàpp mu tàmbalee ndeyjoor mu ne fa iza tawadda al muslim jullit bu fekkee dafay jàpp fa sunnatu an yabdaa bi yadihi l yumna lii sunna li yonent bi bëgg te jàngaleen ko te mu gën a rafet mooy kooku di jàpp na tàmbalee ndeyjoor balaa muy raxas càmmoñ na raxas loxo ndeyjoor ba pare wa yabda'u bu fekkee day raxas tànk wa yabda'u bi qadamil yumna na ndëkkee tànk ndeyjoor qabla al yusra bala càmmoñ bi mu ne day wone ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam pour ñu wone ne ndeyjoor sax moom yonent daf ko bëggoon keroog ba doomam ji di Zeynab génnee àdduna moom yonent alayhi salaatu wasalaam bokk na ci lim wax jigéen ñi ko doon sang ibda bi mayaminiha tàmbale leen ndeyjoor bu ngeen koy sang tàmbale leen côté ndeyjoor wa mawaadi'il wudu'i minha ak barab yi nga xam ne moom la doon jàppee njëkke leen loolu mu ne fa ida kaana haza fi xaqi lmayit fal xay awlaa bi bi tayaamum su fekkee ku dee la ñuy jagleel ndeyjoor mbokk yi kuy dund moo gën a yey ci ku dee ci wàllu ndeyjoor fekkee ku dee la ñuy sang yonent bi ne leen tàmbalee leen ci moom ndeyjooram nee na ku dee moo ci gën a yey kon kuy dund moo gën a yey ci ku dee ci mbirum tiyaabaak jaamu yàlla nee na maana atayaamunu lan mooy maana ndeyjooru wal badu bil yamin mooy looy def rek tàmbaleel ndeyjoor wa taqdimil yamin fi ma zukira fil hadis nee na tàmbalee ndeyjoor ci lii ñu jàngale ci hadis bi ak yeneen hadis nee na mbir mu baax la mbir mu tedd la mu ne kayfiyatul intial atanaul mbirum sol daal yonent bi alayhi salaam nu mu ko doon defee nee na yabda u day tàmbalee al lubsu bi rajuli bi rijlil yumna day tàmbalee sol tànku ndey joor wa yabda ul xal an nial bi rijlil yusra bu fekkee day simmi nag càmmoñ lañ war a njëkk a simmi gis nga te gin yaa ngoog booy sol daal kon ban dàll nga war a njëkk a sol dàll ndeyjoor booy simmi ban nga war a njëkk a simmi déedéet booy simmi ban nga war a njëkk a simmi càmmoñ même booy dugg jàkk ban tànk moo war a njëkk a dugg ndeyjoor booy génn càmmoñ gis nga nee na yonent bi alayhi salaam noonu la ko jàngalee mooy ngay ndey jooru mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na kenn ci yéen bu fekkente ne day sol dàll fal yabda bil yamin na tàmbalee ndey joor wa iza nazaa bu fekkee daf koy simmi fal yabda bi shimal na njëkke càmmoñ li takun al yumna awlaahuma tanaul wa axiruhuma tunza muttafaqun alayhi yonent bi nee na ndeyjoor bi la ñuy njëkk a sol moom la ñuy mujjee simmi moom la ñuy njëkk a sol moom la ñuy mujjee simmi mu ne fil xadis ay tegtal a ngi ci fii sumuliyati diini islam ci matuk diine islam lan nga lu tax ñu ne diine lislaam hadis yi ñu jàng dafa wane ne diine lislaam dafa mat lu tax ndax bàyyiwul dara di la jàngal diine joo xam ne daf lay orienté di la orienté ba ci sol dal ak simmi dal kon yaakaar ngeen ne lu ndaw loolu kon diine yi dina bàyyi yu mag tontu bi mooy déedéet su fekkee diine ji day jàngale bay jàngale nooy solo dal noo koy simmee mu ne wa anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma taraka sabira wala waarida illa allama ummatahu minha yonent bàyyiwul dara lépp lu war a ñëw yonent bi wax na ko nit ñi lépp lu war a xew yonent bi leeralal na ko nit ñi lépp lu nu war a def yonent bi jàngal nanu ko yonent bi bàyyiwul dara amul lenn lu yonent bàyyi moo tax keroog bu muy génn àdduna lu mu wax bàyyee naa leen loo xam ne mahajatun bayda layluha ka nahaariha la yazigu anha illa xaalik bàyyee naa leen lu wee lu weex tàll leer nañ guddi gu mel ne bëccëg ku ko bàyyi rek da ngay sànk mu ne ma huwa tarajul lan mooy baat bi ñuy wax atarajul mu ne huwa tasrihu shaar fa yabda'u aw tabda'u bi tasrihi aljihati alyumna qabla alyusra jàng ngeen ci hadis bi lan kaana yujibuhu atayammunu lu mu ci teg xalifa lu mu ci teg fi tanaulihi boobu daal la beneen baat bi lu mu ci teg di peñewu gis nga mu ne lu baat boobu lu muy tekki mooy suy peñewu xam nga ñun tey bu ñuy peñewu nu ñuy def dañuy jam nii rek delloo ginnaaw ah n'est-ce pas ñun bu ñuy peñewu noonu la ñuy def dañuy jam ndeyjoor delloo ginnaaw jam fii gi delloo ginnaaw yonent bi daawul peñewoo noonu yonent bi fii lay teg ci digg bi wàcce nii def nii ba mu jeex mu teg nii wàcce nii yonent bi noonu la doon peñewoo digg bi fii da ka daan bàyyi mu am benn benn rëdd lii ñëw nii lii ñëw nii yonent noonu la doon peñewoo sallallahu alayhi wa sallam fii nag ku ko fi defoon boo génnee lu lay wax parce que xamuñu ko parce que lu sax xamuñu ko mooy jànguñu ko yonent bi nii la doon peñewoo fii dafa amoon digg fii day def ni ndeyjoor def ni càmmoñ bal sax ñetti yoon la musa watu sallallahu alayhi wa sallam ñetti yoon la musa watu mbokk yi nee na loolu moom mooy baat bi nga xam ne moom la leen wax mooy atarajul day tàmbalee peñe bi ci digg bi daal di wàcce ndeyjoor daal di teg wàcce càmmoñ waaw mu ne wa zalika bi an yuuda al musht mu ne dañuy loolu nag dañuy teg peñe bi fii muntasafi raas ci digg bopp bi nii ci digg bi mu mu def nii jub jub su boobaa wa yuzhibu bihi jihatul yumna mu daal di koy wàcce ba wàllu ndeyjoor summa bu paree bu paree foofu wa iza furiga min jihatul yumna badaa bil yasaar mu daal di dem côté càmmoñ wàcce ko mu ne wa minhu halqu raas aydan même bu ñuy waxtu noonu la ñu war a watoo tàmbale ndeyjoor warti ko wàcce ko ba mu jeex xam nga kawar nu muy saxee su fekkee dëgg-dëgg am nga tuuti xam-xam di nga gis kawar buy sax dafa am fu muy déparé di wër bopp bi ah loolu ñu bëri ñu bëri ñi tàmm di wat kawar noonu noonu lay noonu lay saxee dafa am fu mu déparé di wër def nii di def nii di def nii ba def daj nee na noonu ci boppam tamit lan war a watoo ndeyjoor lan war a tàmbalee yasunnu lahu an yabdaa bil yamin mu ne xaasa nag fi nusk rawatina nag buñ demee ba mu nekk ci période jaamu yàlla yi ay aj ay umra nee na sax na ci anas yonent bi alayhi salaatu wasalaam dem na di aj wala bi muy umra mu ne ki ko doon wat tàmbaleel ndeyjoor après nga dem càmmoñ hadis boobu muslim moo ko solo mu ne wa yabda bi shiqqi raasihi l yumna fi l ghusl mu ne même bu doon sangu janaaba su demee ba ci bopp ndeyjoor lay tàmbale loolu ngay dégg ñu ne na nga diviser sa bopp deux xaaju ndeyjoor lay tàmbale ci bopp bi daal di wàcc jëm suuf nee na wa qiila loolu mooy maana tarajul nee na même ci waru fas sooy wàcc fas bi dañu bëgg nga wàcce fas soo koy yéeg am na ndeyjoor ak càmmoñ wala amul ah am na wala amul ah am na ndeyjoor wala amul am na càmmoñ wala amul dañoo bëgg booy yéeg nga yéege ndeyjoor booy wàcc nga wàcce ndeyjoor tata ci ci ci dawaab nee na loolu mun na nekk yumkin an nuzulu minha bil yamin mën ngaa wàcce fas bi côté ndeyjoor mu ne ab tuhuur mooy laab loolu ñu ne njàpp wala sangu yuqsadu bihi at-tahaara min ajli hadha al-lafz awradahu al-musannif huna nee na liñ ci jublu mooy laab laab nag ñaari laab ñoo am laab ci toj bu ndaw ak laab ci toj bu mag toj bu ndaw mooy njàpp toj bu mag mooy sangu janaaba mu ne wa naqala ibnul munzir al ijma ala adami al i'adati liman badaa bi yasaarihi fi lwudu benn sëriñ bu ñuy tuddee ibnul munzir nee na di jaamu yàlla tàmbalee ndeyjoor loolu day la yonent bi jàngale mooy sunna loolu it mooy li nu bëgg waaye nee na ku tàmbalee càmmoñ kenn du la baamtuluwaatee sa njàpp kenn du la wax nga baamtuwaat njàpp li njàpp bi baax na waaye nag bàyyi nga sunna bàyyi loolu xel mu ne kaana yuxsilu yadahu l yumna qabla al yusra moom yonente alayhi salatu wasalaam su daan jàpp day tàmbali laxas su sottee ndox mi ci loxo ndeyjoor moom lay njëkk a raxas doog a dem loxo laxas loxo càmmoñ buy sol dàll dàllu ndeyjoor lay njëkk a dugal daal di koy sol mu ne wala sàkk annal badu bil yamin huwa sunna mu ne sikk nekku ci kenn sikki sàkkawul kenn werantewul ne sunna njàngale yonent bi mooy tàmbale ndeyjoor bal sax dafa ne fii sha'nihi kullihi ci mbooleem mbiram yépp ndeyjoor lay tàmbale moom yonent mu ne hadis bi ñu leen wax nii bu ci kenn déggee nag laa yufhamu minhu annahu fi kulli shay bal kaana lahu sa'nun min umurihi am na yenn ci ay mbiram yoo xam ne bu ko daan def nag du tàmbalee ndeyjoor pourtant soo déggee hadis daf leen ne fii sa'ni fii sa'nihi kullihi ci mbiram yëpp waaye am na fu mu yem lu tax am na fu mu yem am na ci mbir yoo xam ne bu ko daan def du ko def ndeyjoor comme lan muy dugg ci toilette ban tànk lay jiital gauche càmmoñ muy dugg ci toilette gauche lay jiital ak lan ah su daan su demee ba faj aajoom bay set di laab càmmoñ la ko daan defee loolu ñuy wax laabu càmmoñ lañ koy defee ak lan yéen laay déglu de ak ñendu càmmoñ lañ koy defee wisu càmmoñ lañ koy defee ñendu càmmoñ lañ koy defee laabu càmmoñ lañ koy defee dugu duus càmmoñ lañ koy defee kenn du ko defee ndeyjoor moo tax mu ne yii yonent alayhi salaatu wasalaam sax dafa tere ku ko defee ndeyjoor sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne waqad jaa an nahyu ñëw na ci tere moom yonent mu tere ko an tamassi bil yumna inda qada il haaja kuy dem wanag dem toilette dem àll ba di laaboo loxo ndeyjoor mu ne waja an nahyu aydin anil imtixaat ci ñendu bil yum naa ci loxo ndeyjoor comme ni ngeen ko jàngee kon yooyu càmmoñ lañ koy defee walida qaalat xafsa radiyallahu anha kaana annabi sallallahu alayhi wa sallam yaj'al bi yaminihi li taamihi wa sharabihi wa siyaabihi soxna xafsa moom tamit kenn la ci soxna yonent bi mais Hafsa Omar mooy papaam Omar ibnul Xattaab Aïcha Aboubacar mooy papaam Hafsa nee na yonent alayhi salaatu wasalaam moom day dafa séddale woon ñaari loxoom yi ci ñaari mbir ndeyjoor bi pour lekk la ak naan ak solu càmmoñ bi moom moom yeneen yi moom moom ñendu moom moom tuur ndox moo moom laab hadis boobu ahmad moo ko solo ak abu daawud mbokk yi hatta al axz wal ata wal aklu wa surb kulluhu bil yamin li muxaalafati sheytaan moo tax ñu war a jàngal sax sunu doom yi ñun tamit ñu war a jàngal sunu bopp léeg-léeg nga dem ci kër nga gis am ponkal moo xam ne buñ ko xelilee boisson càmmoñ la koy nangoo wala suñ ko jox kaas ataaya mu nangoo ko càmmoñ wala ñu jox ko kaasu soow mu nangoo ko càmmoñ wala sax ci sunu doom yi ngay may nga koy may dara nga gis mu jël main gauche soo soo ñëwee tey ci droit au Sénégal loolu ñuy wax droit de l'enfant da nga fay fekk ñu ne xale bi su fekkee gauche lay bindee wala gauche lay lekkee wala gauche lay naanee kenn amul droit rectifier ko parce que intelligence am ci gauche bi la nekk nañ ko bàyyi non loolu du islam islam moom dane képp kuy jëfe càmmoñ dañ la war a rectifier am na ci ay mag yoo xam ne magu diini seeni jabar bi ñu leen di toggal daa di xorome cin bi loxo càmmoñ lekkuñu añ boobu wala reer boobu am na ci ñoo xam ne ba leen ki leen toggal ataaye suukaree ataaye bi ak main gauche naanuñu ataaye jooju dañ koo këpp kon ab julit dafa war a yar boppam di defe ndey joor yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na même lekk même jël ak joxe lekk ak naan yépp nañ ko defee nday joor ñu wuuteeg seytaan parce que seytaane yi càmmoñ la koy defee yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na laa yaakulanna ahadun minkum kenn ci yéen bu mu lekk bi simaali yi ci loxo càmmoñam wala yasribanna biha bu mu ko naanee fa inna seytaana yaakulu bi simaalihi wa yashrabu biha seytaane loxo lay nekkee càmmoñ loxo càmmoñ lay naanee wala yaaxudu biha yenente bi nee na bu ko kenn jëlee wala yuti biha bu mu ko joxee kon sooy joxee joxeel càmmoñ ndeyjoor sooy nangu tamit ban loxo ngay nangoo ndeyjoor sooy jël jëlal ndeyjoor booy joxe jëlal ndeyjoor ndax yonent bi nee na seytaane càmmoñ la koy defee kon yow wuuteel ak seytaane ndax yonent bi alayhi salaam loolu la wax mu ne walamma akala rajulun inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi shimalihi fa qala lahu alayhi salatu wasalaam kul bi yaminik na benn waay bu lekk ndoog yonent bi alayhi salaatu salaam lekke càmmoñ yonent bi ne ko lekkeel sa ndeyjoor qaala laa astatiu waa ji ne ko mu yonent munumaa lekke ndeyjoor qaala laa astatiu mënuma ko yonent bi ne ko sallallahu alayhi wa sallam ma manaahu illa al kibr dara terewu laa lekk ndeyjoor lu dul rëy rëy rëy moo la téye rëy allahu akbar bi ko yenti waxee loolu gis ngeen waajooju mënatul fexe ba li yëkkati loxoom bi jëme ko ci gémmiñ gi allahu akbar ay ma rafaaha ila famihi rawahu muslim allahu akbar mënatul fexe ba yëkkati loxo bi jëmee ko ci gémmi gi ndax yonente bi daf ko wax mu rëy mu rëy di ngand ngandul ah mënuma ko est-ce que jéem nga moom ngay gis fii gars yi soo xam ne non loolu man mënuma ko parce que man nii laa màggee ah ma rëy far bi bon jéemo yonente bi moom bi ko waa ji waxee muy dof dof yonente bi nee na loxo ba jógatul jëm ci dem ci dem ci kaw jëm ci gémmiñ gi wa qaala alayhi salaatu wasalaam yonente bi nee na mbokk yi la yaakulanna la ahadukum bi yaminihi wal yashrab bi yaminihi wal yaaxuz bi yaminihi kenn yonent bi nee na kenn ci yéen suy lekk na lekk nday joor suy naan na naan nday joor suy jël na jële nday joor suy joxe wal yuti bi yaminihi na joxe nday joor fa inna sheytaana yaakulu bi simalihi wa yashrab bi simalihi wa yuti bi simalihi wa yaaxuz bi simalihi rawahu ibnu maaja yonent bi nee na seytaane buy lekk càmmoñ lay lekk suy naan càmmoñ lay naane suy joxe càmmoñ lay joxe suy jël càmmoñ lay jëlee ibnu maaja moo solo hadis mu ne taqdimul yumna fi kulli ma min sha'nihi at takrim takriman lil yamin mu ne jiital ndeyjoor ci lépp ne loolu taraanga la bu yàlla terele ndeyjoor hatta yowmal xiyaam suñuy xàmmee ñu baax ñi ñu bon ñi naka la leen yàlla di xàmmee wa amma man utiya kitaabahu bi yaminihi fa sawfa yuhaasabu hisaaban yasira wa amma man utiya kitaabahu problème ñëw na kuñ joxe ndeyjoor yàlla neen dañ lay àtte àtte bu réglé waaye ku ñu joxe main gauche yow alku nga hatta yawmal qiyaama da ngay dégg yàlla mu ne wa ashaabul yamini ma ashaabul yamin yàlla ne waa loxo waa droite ñan ñooy waa droite yàlla tagg leen wa ashaabu simaali ma ashaabu simaal fi samumin wa hamim allah yàlla nañ ci yàlla musal yàlla bi mu ne waa gauche mu ne xam nga ñooy ñan ñooy nekk ci mbooy mu tàng jër moo xam ne boo noyee deret di tuuru yàlla nañ ci yàlla musal am na lu ñuy xaar de mbokk yi am na lu ñuy xaar kon mbir yaa ngi noonu yàlla dafa teral ndeyjoor mu ne walisa fa in aynul yumna tuqaddamu ala al iktixaali wa tuktaxalu witran même booy tusngalu bu fekkee da ngay tusngalu sooy tusngal sa bët yi ndeyjoor ngay tàmbalee mais ndeyjoor bi tamit am na fa côté càmmoñ ci bëtu ndeyjoor am na càmmoñ wala daawda bëtu ndeyjoor fan mooy ndeyjoor ak càmmoñ man sama ndeyjoor fan la nekk ci sama bët bi fii lay tàmbalee càmmoñ bi fan la nekk ma indi nii beneen bi mooy boo koy def na nekk witre soo defee benn baax na boo ko ñaaralee rek foog nga ñetteel yonent bi alei saa salaam noonu la jàngalee comme moom da doon tusngalu su daan tusngalu ndeyjoor lay tàmbalee bëtu ndeyjoor lay tàmbalee ci bëtu ndeyjoor bi am na wàllu ndeyjoor ci wàllu ndeyjoor bi lay tàmbalee sallallahu alayhi wa sallam ba pare mu ne na nekk witre na nga ko def benn wala mu def nga def ko ñett mu ne waye sunnu sunnaal nañ li muslimin ci jullit an yanaama ala shiqqihi al ayman booy tëdd nga tëdde sooy ñëwee di tëdd tëddeel côté ndeyjoor nit ñaari parti la dafa am wàllu ndeyjoor am wàllu càmmoñ yow fan mooy sa wàllu ndeyjoor yow fan mooy sa wàllu càmmoñ gis nga fan mu ngoog soo ñëwee di tëdd kon bar côté nga war a tëdde ndeyjoor nga ñaganaayoo loxo ndeyjoor nga wax lan bismika allahumma amutu wa ahya taqdimul yumna jiital ndeyjoor mu ne kama sabata zalika alhadis an nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi sahih sax na ci yonent bi alayhi salatu salaam mu ne kuy tëdd na tëdd ndeyjoor ne ndagana yoo loxo ndeyjooram mu ngi ci buxaari ak muslim taqdimul ayman mu ne faysa bu bi مقدم المجلس سواء كان الكبير أو الضيف أو غيره فمن السنة أن يعطى من كان عن يمين لا عن يمين الساقي الذي يسقي القوم mu ne même fi mu nekk nii bu ñu toogoon nii ci jàkka ji am ku dugg di joxe ataaya wala muy joxe ndox wala muy joxe boisson waa jooju fan la war a tàmbalee ndeyjoor mooy mu ne attention du ndeyjooru kiy joxe waaye ndeyjooru toogin bala dégg ngeen wax bi ah du ndeyjooru kiy joxe de ndeyjooru tooguwaay bala place bi fi mu nekk fi ñu toog nii jàkka ji ana ndeyjoor ba càmmoñ bi ndeyjoor baa ngi nii fi mooy càmmoñ mu ngoog kon kiy joxe sax bu ñëwee ndeyjoor la war a tàmbalee fii loolu tax ndeysaan yonent alayhi salaatu salaam bi mu toogee ak ñoom Aboubacar Umar Ousmane Saas kàngamu saxaaba yi mag yi am benn kaw kaw benn arab daal di dugg si ñu indi soow waa ji nag moo nekk ci ndeyjoor moom xale bi rek kaw kaw la gan la rek gaa yi bëgg ne ah moom Aboubacar moom mooy kilifa gi mooy mag xaaral ñu njëkki Aboubacar rek waa ji ne leen ah man d'accorduma ci de d'accord ma ci rek yonent bi daal di jël loxoom ne ko nii ne ko sawaay doo may mag ñi mu ne mukk ndax yonent bi moo naan ba pare moom daa bëgg jël gémmiñam teg ko fi yonent bi naane woon te gars yi bu ñu ko jëlee dañuy njëkk ci affaire bi mu ne leen mukk mayewu ma mayewu ma na ñëw na ñëw waaw yonent bi ne kon jox leen ko yëfam waaw wax na dëgg de wax na dëgg de loolu moom kenn du ko bàyyee kenn ndeysaan allahu akbar mu ne walisa lama utiya nabi sallallahu alayhi wasallam bi laban ndeysaan biñ ko indilee soow mu daal di ciy naan ñu bëgg a romb waa ji wa an yaminihil arab fekk yonent bi alayhi salaam bi mu toogee nii jox nañ ko mu naan fii nii ma toog waa ji moo nekk fii Aboubacar moo nekk fii waa ji bëgg a dem ne mu ne ko déet ndeyjoor ñëwal ñëwal yonent bi ne nii waa ji pour mu bàyyi waa ji ne leen yonent maa nekk ndeyjoor na affaire bi ñëw yaa di koy yox yoxam ndeysaan mu ne wa an yasaarihi abu bakrin allahu akbar fa shariba summa aata al arabi yonent bi daal di naan daal di jox arab bi mu naan wa qaala al ayman fal ayman muttafaqun alayhi yonent bi mu naanee ba pare mu ne ndeyjoor ndeyjoor mu ne hadis bi muttafaqun alayhi ndeysaan ñëwaat na ci hadis bi ba tey mu ne utiya sallallahu alayhi wa sallam bi sharab fa shariba minhu wa an yaminihi gulaam wa an yasaarihi al asyaah fa qaala lil gulaami ataazan li an utiya li haula fa qaala al gulaam wallahi ya rasulallah la usiru bi nasibi minka ahad yonent bi toog na ak benn xale xale bi nekk ndey jooram yonent bi naan ba pare mu ne xale bi ah doo may ma may mag ñi mag ñi njëkka naan yonent bi ne ko yonent xale bi ne ko yonent gis nga li nga desal duma ko bàyyee kenn na ñëw fii ah walaay mu ngoog ndeysaan ndeysaan wa jaa fi baadi riwayat anna gulaam huwa abdullah ibnu mas abbas ñi sax ñi wax ne xale boobu ñu ne xale bi ñëw na ci ay baat ci ay riwaaya hadis ñu ne ibnu abbas la woon boobu mu ngi nekk xale xam ngeen abdullah ibnu abbas toog na ci place yonent bi depuis mu nekk xale loolu moo tax bi yonent bi génnee àdduna sahaaba yi wuutu yonent bi ku toog abdullah ibnu abbas lay toog ci mu ngi nekk xale benn bis sax mag ñi ñu ne waay ñun daal jaaxle nañ xale bi saa yu ñu fi toogee rek Omar woo ko mu toog lii mooy lan kii dafa war a foy ca xale ya lu mu fi def ci biir paa yi léegi Omar dégg na loolu mu bàyyi ba ñëpp toog rek mu ne damaa bëgg ku ma firil suratu nasr iza jaa nasrullahi wal fath na mag ñi bismillah gaa yi firee ko comme ñun niñ koy firee tey iza su fekkente ne jaa ñëw na nasrullahi ndimbalal yàlla wal fatuhu ba nga ubbi màkka waraay tannaasa di nga gis nit ñi yadxulu nañuy dugg fii diini laa ci diine yàlla afwaajan ay mbooloo mbooloo bu ñëpp jeex mu ne abdullah ibnu abbas yaa ci des de dama bëgg nga firil ma suratul nasr mu ne ko li njëkk mooy balaa may dugg ci saar bi mooy saar bi dafa ñëw pour tàgge yonent bi gis nga de gars yi ne ah Omar ne lii moo tax ma bàyyi ko fi mu toog kon nag mu wax leen keroog ci suratul nasr loo xam ne ñoom mosuñu ko dégg Omar ne leen lii moo tax ma bàyyi ko fi kii du xale kese kese de mu ngoog ndeysaan moo tax ñu ne xale boobu Abdullahi ibnu Abbas la ci yenn riwaaye yi ñoom loolu la ñu wax mbokk jullit yi kon jàng nañ tey ne ndeyjoor islaam def koo bëgg ba pare soññ nit ñi pour ñuy ndeyjooru ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbiram yépp ndeyjoor la woon ku bëggoon ndeyjoor la ba sax ci léppam day ndeyjooru gis ngeen dàll peñewu sangu lépp lu muy def ñu ne def koy ndeyjooru même gis ngeen sax ci ku nekk ci wetam ndeyjoor mu naan ba pare ñu daal di jox ku nekk ndeyjoor kon lii leçon la boo xam ne wara ñu ko yemale rek ci suñu bopp waaye ñu jàngalaale ci suñu njaboot ñu wuuteeg seytaane waaye wuuteeg ñii nga xam ne dañoo ay noonu diine lañ nga xam ne ñoom lépp lu diine rafetlu ñoom dañ koy ñaawlu bëgg a yare sunu doom yi càmmoñ fi mu nekk nii xale bu nekk ci école di jàng di bindee gauche enseignant bi amul droit di ko rectifier dañ naan la bàyyi ko loolu nag du diine te xam ngeen ne xale su commencé rek càmmoñ lay commencé buñ la rectifier rek noonu ngay langee waaw kon diine moom lim ñu sant mooy ñuy ndey jooru comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngalee kon loolu mooy darsu tey mbokki jullit yi noo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala bu amee ay njuumte yal nañ ko yàlla jéggal assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu dekkee am nay laaj